ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ففتح به آذانا سما وعيونا عميا وقلوبا غلفا فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا kon mbokk julli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon gannaaw sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi leen nuyu di leen sargal ci jotaay bu am solo bi ngeen amal nga xam ne lu war di bari la ñuy fàttalante ci mbir mi mbir yi nga xam ni buñ làmboog yooyu mbir dina tax ñu gën a mën a liggéey liggéey bi du ma sore bala maa sore dinaa seede ci li nga xam ne moom la Seyda Seydina Adama wax ni Seyda Adama wax nii léegi ci seen amira bi ah fa shahida shahidun min ahlihi comme ni ko yàlla waxee loolu man lu ma mën a seede la ndax ba muy daan nekk élève daan dem lycée di jàngi fekk bu tax maa ngi jàngale El Hadj Umar na rombante nii man sam bopp toujours dama naan maanaam bu ñu xoolee mag ñi ak ndaw ñi bu ñu xoolee ci Fatia am lii nga xam ne tey moom ngeen di thème bi ngeen di traité tey muy sacrifice ak discipline iltizam wa tadxiya ku xool ci moom mën na ci rayo lu bare bare pourtant mu doon xale boo xam ne mi ngi jàng mi ngi jàng mi ngi jàngee lycée comme ni ko Adama waxee ñeneen ñu jiitu ko mag ko fuuf mais teewul ak njàmbaaram iltizamam maanaam discipline am ci wàllu liggéey bi ak maanaam tadxiya mi sacrifice moo tax ba tey tax tey ñu wóolu ko teg ko muy amir bi sama ñu ko tegee ba léegi tamit toujours dafay continuer ci mbir mi man toujours dama koy jox exemple ci fu baree baree bare xëy na moom du ko fekkee nag mais dama koy jox exemple fu baree bare bu sa bu ngeen ko xoolee yéen xam ngeen ne li may wax moom dëgg la du loo xam ni dama koy wax ni rek ngir mu ngir mu neex ko man sama xarit la trop parce que dafa jàmbaara ci liggéey bi waaw kon ku mat di maanaam xool la yàlla na ko yàlla lafal cet sa jàppale ko kon ñaar yi nga xam ne moom la ñu war a traité ñu ma ko ci thème bi muy at-tadhiya wal iltizam ñaar yi mbir yu rëy la yoo xam ni bépp liggéey bu dox moo ko doxal groupe bu daje di liggéey su ñaar yooyu amul du dem ci loolu bu ñu xoolee waa delluwaatee ci histoire yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bu ñu xoolee suñu maam Ibrahima ñaar yooyu moo tax yàlla dem ba ñu ko inni jaa'iluka linnaas imaama parce que sacrifice bu rëy la def ak iltizam bu rëy muy discipline boo xam ne lu ko yàlla mës a wax ni nii la rek même su fekkente ne lu mu métti métti métti dina sacrifié wu ngir def loolu waaw nekk ku discipline digganteem ak borom subhanahu wa taala ba tax mu àgg ba ba ki yàlla ne reyal sa doom amu ci benn déngi-déngi mu wax ko doom ji tamit fekk noonu la yara doom ji noonu la formé tamit soxnaam ba tax soxna gi d'accord ci doom ji d'accord ci suñu d'accord woon sax da koy def yàlla may ko li mu ko may def ko muy njiitul imam mursalin wa wa abul anbiya def ko lin naasi imaman ni man moom mooy sama xarit ndax ñaari mbir yu rëy sacrifice bu mu doon def ak maanaam iltisam boobu mu amoon discipline boobu kon ñaar yooyu rek ñoom ñoo mën a àggale liggéey wax ma liggéey lislaam rek mais liggéey bu mu mën a doon su fekkente ne ñaar yooyu amu ci rek du dem kon tem la bu rëy rëy rëy boo xam ni il faut ñu maanaam taxaan bu baax a baax li mbokk bi di wax sa buñ fi jógee tamit ñu jéem a appliquer ci loolu mettre que en action bu dul loolu du dem su fekkente ne ñu koy déglu tamit mu wax mu leer ba noppi tamit bu ñu demee duñ ko jëfee tamit kon du mën a jàll kon maa ngi bëgg guddal xam naa kon damay bàyyi mbokk mi rek incha allah mu dugg ci thème bi ko defee ngeen xeralu bu baax a baax a baax déglu li mu leen wax sa buñ ci jógee tamit jéem koo appliqué ci terrain bi ko defee bu amee rek borom sant taala dinañ jàppale li ñuy gàllankoor yu bëri dinañ ko mën a dinañ ko mën a dinañ ko jéggi dem. parce que jullit bi moom ni ko yonte boo xoon alal mar il muslimi taa fi ma ahabba wa kariha aw kama qaal maanaam jullit bi li naan ndigal dafa am ci lislaam de. c'est que l'islam bi mu lay digal day doon loo xam ne lu yoon la day doon loo xam ne lu baax la luy jël luy jëme kanam la mais daf cee am yonante bi nee na jullit bi liñ koy digal mu neex ko mu naqari ko fekk doonul loo xam ni lu yàlla tere la ah rek da cee war a def iltisam pour mu def iltisam nag maanaam pour mu discipliner nag il faut mu def sacrifice ndax léeg-léegi du neex bakkan bi léeg-léegi du du ay ay gàllankoor yu bëri day taxaw mais il faut que def sacrifice soo ko mën a dem kon maa ngi guddal ma bàyyi mbokk mi incha allah tafaddal mashkuran incha allah dama am kii wax ko wax
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala sunu jataay bi yal na ko yàlla boole ci jataay yi mu nangu di am mbégte daje ak mbokk jullit yi fàttalante ak ñoom ci tomb bi nga xam ne daanaka moom moo ëmb lépp lu yëngatu lislaam li may sàkku balaa ñuy dugg ci waxtaan wi mooy kenn ku nekk ci ñun ku teew fii mooy mu beesalaat yéeneem ci lan moo tax mu teew fii waaye lan moo tax mu bokk ci yëngatu lislaam bi ñu bañ a teew fii rek parce que dañu am benn yendu ñu bañ a teew fii rek parce que mbokk yi ñëw nañ naa ñëw ñu bañ a teew fii rek parce que bu ma fi teewul ñu sikk ma su boobaa sa teewaay fii du am benn sens ci yàlla subhanahu wa taala du am tiyaaba ndax sa yéene la la yàlla di fay innamal amal binniyat kon mbokk yi maa ngi soññ sama bopp di leen soññ kenn ku nekk fi nga toog ci sa biir xol nga yee salaat sa yéene sa digganteeg sa boroom mbooloo mi di mbooloom lislaam yëngatu bi di liggéeyu yàlla yow lan moo tax nga bokk ci lan moo tax nga dugg ci léeg-léeg ci ñàkk a xam doomu aadama li mu bokk wala li muy yëngatu lool moo tax du ci sonn wala lim ci war a def ci ay effort du ko ci def wala ni mu ko war a taxawee du ko taxawee parce que lu tax yéeneem ci mbooloo moom mu nekk la mu ca yéene rek loolu la ko ci yàlla subhanahu wa taala di jox ci yéeneem loolu la koy fay misaal ci li tàqale aada yi ak jaamu yàlla mooy yéene ki nga xam ne dañoo teg lekk bi mu ñëw fas yéene lekk lekk jaamu yàlla kooku day am ñaar day am lekk biiram fees mais mu am yàlla waaye ki fas yéene lekk biiram fees kese kooku du am yàlla biir bu fees dong lay am loolu moo tàqale yéene yi te ab jullit moom léppam ci kaw suuf li ko war a tënk mooy yàlla subhanahu wa taala lekk naan sëy dugg génn fu nekk loo war a def rek chaque jour il faut ñuy moytandiku su ma teewul ñu mere ma kon naa dem teew amoo tiyaaba parce que ragaloo yàlla mbokk yi nga ragal nit ñi nga ragal te imam ni mu waxee léegi-léegi ci tomb bi nga xam ne moom la ñu fas yéene fàttalante man li ma jàpp mooy mbooloo mi muy jamaatu ibadu rahman góor ak jigéen su fekkoonte ne ba ñu tàmbalee ba léegi rythme bi ñu nekkoon bàyyi wuñ ko kon islamisé nañ Sénégal chaque jour dama koy wax guddeeg bëccëg mais dañu tàmbali ba caag seytaane daal ñuy këf dévier ñu genn wàll gi ci ñun ñëpp toog seeni biir kër ñenn ñi xëy na ba ñuy ñëw ci sunna jëkkër lañ bëggoon ñenn ñi jabar lañ bëggoon ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi ku nekk allahu aalam lan moo taxoon nga ñëw waaye sikk nekk ci ne am na ci ñoo xam ne ci ñun dam daan faral di wax sama benn sëriñ yàlla na ko yàlla yërëm mooy ustaz Abdul Karim Guèye benn aaya at ci alquran képp kuy jullit alquran yëpp la ñu war a bàyyi xel mais dafa raw yenn yenn aaya yi aaya bi yàlla subhanahu wa taala duut sahaaba yi baaraam ne leen wa minkum man yuridu dunia xayru nnas salafu saalih aboubacar omar ousmane ali fatima zeynab roqaya ñu mel ni ñoom yàlla ne leen xool mbooloo mi ba càgg mu ne yéen mbooloo mi wër yonent bi ñu ne ah mu ne am na ci yéen ñoo xam ne addunaa leen tax a jóg kon bu yàlla waxee loolu mbooloo yonent yàlla muhammad kon sunu mbooloo nag ñun est-ce que da ngeen jàpp ne ñëpp ñu muuru wala ñëpp ñu am sikim rek ay sunnit lañ sunna moo tax ñu jóg ah déedéet yàlla moo ne woon yonent bi sahaaba yi am na ci yéen ñoo xam ne waruñu yonent bi lu adduna dong moo leen fi bàyyi loolu yàlla moo ko ñemee wax sahabatul kiram kon ñun tamit lenn ci sunu mbooloo mi est-ce que taxul adduna rek taxul ñu jóg moo tax foog ñuy yee salaat yéene yi di ko bee salaat guddi ak bëccëg sunu yëngatu mu nekk yàlla kese parce que sinon damay faral di wax xale yu jigéen yi géejawaay dañuy mortu perte àdduna perte àllaaxira lan mooy perte àdduna perte àllaaxira mooy dèjà fii ñu toog ni mbooloo mi kenn ci ñun ñaanatul yàlla nekk ci baal yi soirée yi wala di pacca paccaxi ci musique bi ci tefesu géej góor ak jigéen kenn ñaanatu ko yàlla léegi nag mooy yow bàyyi nga loolu kon dèjà nit ñi jàpp nañ ne yow dootoo noos àdduna parce que loolu lañ jàpp ne mooy noos bàyyi nga loolu nee nga yaa ngi jëm ci yàlla jotoo yegg mooy perte nga àdduna perte nga àllaaxira wala ba nga jubloo yàlla ba ngay ñëw sellul ba ngay ñëw ñëwoo ni nga war a ñëwee léegi àdduna raw la la jotoo yegg ci yàlla sa diina jotul sell mooy perte nga àdduna perte nga àllaaxira ëllëg ñooñu nga doon xas mooy borom zipp yeeg mees yeeg dangal yi yàlla booye la ak ñoom ci biir kàmbu jahannama wala iyaazu billah yàlla ñu yàlla musal kon ixwatal iman foog ñu delloo ba bàyyi xel suñu bopp liggéey bi lu njëkk mooy liggéeyu yàlla la yàlla nag subhanahu wa taala bi mu amee liggéeyam santaane ñu liggéey ko yow mi nga xam ne da ngaa ñëw pour liggéey nekkul ne da ngay liggéey nu la neex mais borom sànce bi ni mu bëggee sànce bi ñu tabaxale ko tabax bi noonu lañ koy tabaxee kenn ci yéen tey toog fii bu amoon tisi yóbbu ko ci téer bi ne kon modèle sàngam laa bëgg ñawal ma ko nga dem mu ne kii dafa soof boobu dafa yéex dafa yàgg xaaral rek ma ñawal ko ko bu gën a gaaw nga xam ne ngoon mu jël si ko mu ñëw fekk ñaw na ko ba pare mais moom ni mu ko bëggee pas yow ni nga ko bëggee nga ñëw mu génne ne la ñaw naa ko mi ngi nii fekk moom ni mu ko bëggee la ko ñëwee est-ce que di nga ko fay damay laajte ndax dinañ ko fay doo ko fay xam nga léegi lan ngay lijjanti mooy sa tisi bi nga jot a indi nan la la ko fayee parce que dagg na ko ba pare. léegi nag ñun bu fekkee dañuy ñëw ci liggéey yàlla ci toolu yàlla bii bëgg ci liggéey bëgg liggéey salon ñun ni mu ñu neexee paa ni neexee yàlla ndax dinañ am tiyaaba duñ am tiyaaba dañ ciy nekk ay at yëngatu kërti kërti dee dajeeg yàlla yàlla daal di koy sànni fële wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan manthura yàlla nee na gaa yi doon jëf ci aduna te na ma doon na ma man man yàlla na ma bëggee woon jëfewuñu noonu ba ñu ñëwee dañoo fekk la ñu jëfoon yëpp ma def ko pënd ak poussière mu naaw pourtant jëf nañ mais yàlla da koo def pënd ak poussière parce que lan mooy ñoom ba ñuy ñëw di jëf jëfuñu ni yàlla bëggee kon mbokk jullit yi liggéeyu lislaam bi wala bépp xalaat wala bépp idéologie wala bépp ngëm-ngëm wala lépp lu doomu aadama fas yéene liggéey ci kaw suuf mu nekk xalaatam même bu doon parti politique wala bu doon daayira bu doon mbooloo mbooloo moomu xalaat ya ca nekk du mën a tasaaroo lu dul nit ya gëm xalaat boobu futteeku tas xalaat bi xoolal rek ay fan yu néew dañu jekki-jekki am ay mbooloo yu juddu Sénégal yoo xam ne dañoo dem ba bëgg a raw mbooloo yi fi nekkoon lu mel ne ay cantaakun dañu jekki-jekki mu exister am Sénégal foo turne ñu naan cantaakun yi yéen waa Thiès moom loolu soriwu leen ndax place de France bi def nañ ko fi ay yooni yoon jekki-jekki ñu exister commencé tas seeni xalaat ñooñu ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoo xam ne mën nañ leen lim ma ni mbooloo seen idéologie du tasaaroo lu dul ay nit góor ak jigéen ñoo koy yenu fu nekk ci par ci kaw suuf ñu yóbbu ko fa bi mbooloo bi tasaa tam- tàmbalee nekk mbooloo yàlla di commencé woote da ngay gis école yi bureau yi biir kër yi marché yi oto yi foo tourné rek gis ay nit engagé wu di jottali kàddu yàlla wala wala ñu jékki-jékki waxutuma la sax école yi waaye waaye sunu xew yi sax da ngay gis ku xew sooba ngoon kenn du fa fàttali ah xaw ma loolu ndax yegsi na Thiès ah mais Dakar moom loolu bëreeti na fa moom xaw ma Thiès nag waaye dem nañ ay waxtu yoo xam ne sunu xew yi laa wax ñun sunu bopp da ngay ñëw ci xew ngénte wala ba dëj sax ah dëj moo gën a garaaw nga dem ba ñëwaat doo fa dégg sax ñu ne yàlla nee na. na di nga xam ne rek ñii ay sunnit lañ parce que dañoo muuru góor ñaa ngi nii am nañ sikkim tubé yi gàtt na jeex na est ce que loolu la woon. mbokk bi wax na léegi bi muy ubbi mun naa ñaari mbir su nekkul ci liggéey lislaam rek du dem day fay mooy sacrifice ak engagement aboubacarin sadiq radiallahu anhu wa ardaahu bi mu duggee ci diine bi premier jour mu toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent damaa ñëw pour nangu lislaam yonent tàllal loxo ndey jooram aboubacar teg loxo ndey jooram ñu jàppante loxo yi aboubacar tudd baatu seede yi dafa benn laaj la laaj yonent maanaam lii ma dugg tey lan moo ma ci war yonent bi ne ko li ma war moo la war man mii li ma ci war moo la ci war yow aboubacar aboubacar daal di génn premier jour boobu mu indi ousmane ibnu affan deuxième jour mu indi ousmane ibnu maazun troisième jour mu indi arqam ibnu abil arqam quatrième jour mu indi bilal cinquième jour mu indi ousmane ibnu maazun bal sax da ngay jàng almubashirina bil janna ñaata lañ ah almubashirina bil janna ñaata lañ fukk juróom-ñaar ñi aboubacar moo leen dugal ci lislaam benn laaj bu may laaj yéen ñi muuru fii bi ngeen nekkee ahlu sunna ba léegi ñaata at la kenn ku nekk ci yéen toog fi ñaata nit nga dugal bi nga muuroo ba léegi ku nekk posé question boobu sa bopp maanaam man bi ma nekk ahlu sunna ba tey mbooloo mi di jamaatu ibaadu rahman ñaata jigéen laa ci indi est-ce que mun naa tàmbalee yamin ba fii ku nekk acca bismillah xalaatal sa bopp ñaata nit nga dugal ci mbooloo bi c'est ça le problème Aboubacar ma ne premier jour dafa indi nit ba mu nekk juróom-ñaari fan semaine bis bu nekk dina jàpp ponkal teg ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kii maa ko indi ba Bilal mii ngeen di gis tey Bilal Aboubacar moo ko dugal ci diine ñun jàpp nañ ne mbo- mbir mi mbirum muuraay kese la muuru naa terminé amatul fexe sa kër wala sa dëkkandoo wala say mbokk wala wala wala déedéet waaw léegi dañoo dem ba ku nekk na nga naan sama bopp rek sa bopp sax am na ñoo xam ne tey bu ñu doon laaj seen bopp waaye yéen seen bopp yéen ndax daawa ngeen ñu ne déedéet sama kii sax daawatuma man sama bopp sa bakkan bi sax daawatoo toog kon liggéey ba fuñ jëm moo tax liggéey bi dem léegi di fay démb foo tourné da ngay dégg ñu ne kii démb la ñëw kii démb la muuru kii tàngam kii nangam tey da ngay dégg ñu ne ah diw de génn na diw de génn na ñaanal leen ko yàlla diw génn na maanaam démb nu ñu doon waxee nit ñi dañuy dugg tey noonu la ñuy waxee nit ñi dañuy génn parce que nit ñi dañoo ñëw gisuñu lu leen fi téye fekkuñu fi lu boy loo xamante ne taal na seen ngëm yàlla ba ñu ñor toog moo tax nit ñi fa ñu mujj di génnaat di dem ci ay caaxaan dem ci ay yàlla yàlla dem ci ay cantaakun dem ci ay dem ci ay dem ci parce que foofu la yëngatu ba nekk fii dara amatu fi lu dul kol dara amatu fi lu dul kol ak mbax ne loolu musiba la mbokk yi yonent yi alayhimu salaam ñoo njëkk a def ay sacrifice ak engagé wu ci ngëm-ngëm yi leen yàlla joxoon parce que ñoo ko war a indi ci kaw suuf jàngal histoire nuux alayhi salaam bi ko yàlla tànnee def ko yonent nuux ñibbi si biir këram toog jël craie wala mu jël bic mu ñëw ci tableau bi teg tableau ci kanamam muy rëdd plan naka la war a taxawee ci liggéey yàlla bi lan la wax daawtu qawmi laylan wa nahaara daawtu qawmi laylan wa nahaaran yàlla woonaa samay nit guddi ak bëccëg al leyl wa nahaar al alan wal israar summa inni daawtuhum jihaaran summa inni aalantu lahum woote naa guddi ak bëccëg woote lu nëbb woote lu feeñ lan moo fi des ñun suñu programme bu ñu tëral mooy dimanche ba dimanche wala samedi ba samedi wala quinzaine wala un mois wala un an bu nekk benn conférence wala xoolal yonent yàlla Nuux moom lan la wax guddi ak bëccëg su guddee muy woote bu bëccëgee muy woote mbooloo mu mu seen dem wala sax su mbooloo mi tasee mu def ay individu dugg ci biir kër yi ñun kan moo musa toog fii ba ci yàgg nga jóg dugg sa benn kër dëkkandoo wala sa kër wala bu kër néeg yi jàkkaarloo nga jénn sa néeg dugg néeg bi kan ci ñun kon mbir yi ndeke wax da ci ëpp jëf affaire yi jëf la ndeke du wax ay jëf la léegi nag ñun bu ñu ñëwee ci wax kese lan la lay jural mooy mbooloo mi nekk fii mais amul importance mooy saaku bu amul dara saaku baa ngi fi mais saaku ceeb kañ lay am njëriñ mooy bu ci ceeb bi nekkee imagineel saaku ceeb bu amul dara lan lay jëriñ loolu mooy musiba mooy mbooloo mi nekk fi fekk mbooloo mi amul benn njëriñ suñ ne jamaatu ibaadu rahmaan ñu ne ya waaw loolu la ñoo ñoo ñii muuru mais au fond boo doon dugg ci biir di xool di càmbar da ngay fekk dara loolu musiba la te xam ne ne yàgg naa wax ne am na am na tarixa yoo xam ne ñun ñoo leen ëpp nit tey ci Sénégal am na ñoo xam ñu ñoo leen ëpp mais mal asaf lan moo tax ñooñu di exister chaque jour ci terrain bi ñun duñu exister c'est parce que suñu engagement moo des suñu sacrifice yi ñuy def moo def moo des léeg nga gis benn waay ci mbooloo mi mu toog fi ñaar fukki at yu mu cotisé wul dërëm te pourtant këram dépense manqué wul ataaya sax manqué wul est-ce que loolu liggéey diine la est-ce que gëm-gëm diine la wax naa léegi ne yont yàlla noo guddi ak bëccëg la wax yàlla waaye yemul ci guddi ak bëccëg mu ne alf sanatin illa xamsina aman junni at yu manqué juróom fukk découragé wul junni at yu manqué juróom fukk nu nekk ci terrain bi di woon nit ñi ibudullah ma lakum min ilahin gayru jaamu leen yàlla amul benn buur bu ngeen war a jaamu budul moom ñun tey boo ci dëkkoo nag waxuma la sax sa dëkkandoo waaye sa doom boo ko ne ñetti yoon dafa raatal sa kol gi mu lànk nga ne ko pare naa ci yow dootuma la ko waxati nga bàyyi xale bi noonu lay dem noonu lay dem noonu lay demee ba génn sunna léeg-léeg ma ni mbokk yi ñun li nu dal warul dal suñuy doom xale boo xam dafa judd ci sunna papaam ak yaayam nekk ay sunnit xale boobu màgg bañ a nekk sunnit loolu musiba la te tey am na am na ci sunuy kër yoo xam ne da nga fay dugg gis xale bu jigéen bu am vingt ans instant bi te du muuru te xale boobu ci sunna la judd lu ko waral mooy ndeyam ak baayam seen engagement seen sacrifice moo deñ ci mbooloo mi xale boobu sax daawuñ ko yóbbu xamul ban mbooloo la bokk ba mujj gi waa seytaane këf ko yóbbu ko ci góor ak jigéen nag mus naa def benn benn tukki boo xam ne peut-être su ma waxee fi ma demoon walla ma wax ki ma fa fekki woon day day ëpp mus naa tukki benn tukki ci biir Sénégal ci ay dëkk lan lañ ma fa yóbbe woon may def benn table ronde man ak ay rappeur te ki jiitu woon ki jiite woon rappeur yooyu ci sunna la judd ndeyam ak baayam ay sunnit lañ mu jiite rappeurs yi ñu jële ma Dakar ma dem dëkk boobu di def ak moom kon table ronde te ci sunna la judd loolu moom ma yéem keroog bi ma ñëwee ñu accueillir ma seen kër may fanaan ci néegam poster yi def yaramu neen xale yu jigéen yeeg seen ween yeeg silib yi wër ma dama tiit ci ku góor koo xam ne ci sunna la judd ndeyam ak baayam mooy seen taaw ci sunna lañ ko jur mais xoolal kooku fu mu mujje kon mbokk yi foog pas-pas bi sacrifice bi engagement bi waxuma la balaa mbooloo mi mais suñu bopp ñu xam ñun ñooy ñan ñu xam ñun lan moo nu war ñu xam ñun lan mooy suñu bëgg-bëgg ñu xam ñun li yonent bi waxoon Aboubacar mooy li ma war moo la war gis nga yonent dafa teel a leeral Aboubacar mbir mi mooy li ma war moo la war moo koy xool leen Aboubacar Saddiq li mu def ci diine suñ ko doon jël moom kenn pour modèle wallahi day doy xoola keroog ba yonent bi saa salaam ñëwee ci digg njolloor naaj bi tàng jër yonent bi ñëw jóge këram di dem kër Aboubacar mu ñëw ci heure boo xam ne daawul ñëw heure boobu kër Aboubacar Aboubacar ba mu séenee yonent bi di ñëw mu xam ne am na lu xew parce que kii di ñëw musul ñëw heure bi sama kër mu jóg taxaw dabak bu dab ko ci mbedd mi ci buntu kër gi ne ko mbaa jàmm la lu xew mu ne ko yàlla moo joxe ndigal ne bu ma fanaan Màkka tey lan la ko Aboubacar wax as sohbatu ya rasulallah kon de damay ànd ak yow commencé di jooy waaye lan la yonent bi wax Aboubacar ndax kër gi am na étranger bu la fi rax maanaam ndax sa njaboot ku ci bokkul bokk na ci xoolal lu ko Aboubacar wax ñëpp alhamdulillah samay doom lañ kon am na confiance ci ay doomam am na conscience ci jabaram xam na ne information bi du jàll xoolal formation boobu ci digg kër gi lañ toog dugg ñu ci biir néeg bi mu commencé di ko wax nan la ñuy def pour génn maanaam yonent bi jànguñu ci siira mu ne Aboubacar préparé ñaari gëléem waxu ko ko préparé lekk kuñ koy indil préparé naan kuñ koy indil yonent bi ak Aboubacar waxtaan nañ ba ne guddi la ñuy génn Aboubacar dem préparé ji ñaari gëléem ba yonent bi mu génnee daf fekk Aboubacar préparé na gëléem yooyu ñu tegu ci ñoom ñaar waaye Aboubacar bàyyi na këram ay xale yoo xam ne asma jigéen la xoolal engagement boobu. nañ jël misaal Makka septième siècle septième siècle Makka septième siècle tey rek yéen fii ngeen dëkk buñ ñëwoon benn jigéen na génn deux heures du matin ci coupure du courant kan ci yéen mooy ñeme génn ñu ne la doxal fi ba garage looy wax ey kii kii Amira daf maa bëgg a rey waaye dana xam ne reyul jabaram reyul doomam bëgg maa rey du ma du ma ko nangu wala xool xale bu jigéen septième siècle asma amul sax 18 ans mooy togg ba mu ñor mu def ci benn mbuus tànk ndox def ci mbuus daal di koy boot daal di xuus xuri màkka ci lëndëm googu bal sax balaa muy dem Abu Jahal ñëw na ci kër gi nekk ana yonent bi mu ne gisuma ko ana sa papa gisuma ko pes la ko def ba nopp bi jaaro bi tak nekkoon ci nopp bi dafa dagg deret ji tuuru lan la ko wax bu yeboo nga rey ma mais gisuma leen pourtant xam na fi ñu nekk xam na ne ñu ngi xaari xiraa xam na ne papaam ak yonent bi fa la nëbbu xoolal engagement boobu ak sacrifice boobu ci guddi googu ci lëndëm yooyu la xale bi di xuus dem yóbbul leen lekk yóbbul leen naan ba yonent bi sala salaam tuddee ko zaatu nitaqayn borom ñaari mbuus yi waaye xoolal rakam abdallah su xale bu jigéen bi demee moom day jóg 5 heures du matin jël xar yi daal koy jaaral ci tànk rak mag ji balaa ma waa màkk di yeewu gis trasu tànk yi ñu topp tànk yi xar yi lay jël su demee ba ci xeer ba daal di koy wëral xar yi Aboubacar daal di ñëw ratt ci saw mi ba mu fees daal di duggaat ci biir xunt mi bu bu xale bi ñibbee mu daal di mu daal ci toppaat xoolal loolu ay xale yoo xam ne nangu nañ joxe seen bopp ci diine kon ndeke mbir yi li ñu waxoon léegi léegi léegi mooy bépp xalaat wala bépp ngëm-ngëm wala valeur wala lu mën a doon wala benn yoon mënul nekk wala organisation sax mënul nekk mënul tasaaroo lu dul ay góor ak ay jigéen yu gëm mbir moomu tasaare ko léeg-léeg ma wax xale yu jigéen yi léeg-léeg nga tourné mbeddi Dakar rek gis xale bu jigéen bu def tànku neen sol mbubb bu njaxas jël kaalaam takk ci ndiggam di yalwaan ñu tuddee ko yaay faal au lieu de baay faal mais yaay faal am na Cees am na Cees ay yaay faal voilà xoolal loolu xoolal kooku talul sëy talul fóot talul sangu talul dara lan parce que nee nañ ko ne dañoo war a dem place sangam te dañoo war a yóbbu foofu nangam kon kenn ku nekk na nga sosu bu weer bi dee na nga indi nangam moom mu jaral ko mu ut këllam jaar ci mbedd yi di uti loolu pour mu mat léeg-léeg ma ni mbokk yi nañ gam-gamle ñi nekk ci tarixa yi ak ñi nekk ci ahlu sunna dafa mel ne ñi nekk ci tarixa yi ñoo nekk ci dëgg ak par rapport ak nun par rapport ak nun dafa mel ne ñi tarixa yi ña ca nekk ñoo nekk ci dëgg ñun nekkuñ ci dëgg parce que mbir mi ñun dafa mel ne jaralunu dara dara dara daawa islam ba muy tasaaro ay ñaari nit ñett frère musulman yu Égypte ba muy tàmbale ci juróom benn nit la woon tey Thiès ñaata nit ñoo fi muuru mën ngeen ko lim ñaata góor ñoo fi nekk ay ahlu sunna su fekkoon ngëm-ngëm gi dem na ba ca xol ya sax est-ce que kon ay année yu néew duñ islamiser Thiès mais mala saf dañu jékki-jékki mel na ñu doon dem ba caag rek ñu ne leen wàññeeku leen ñëpp toog ñenn ñi am jëkkër toog ñenn ñi am jabar toog koo wax mu ne nangam décora seytaane daal di dugg ci liggéey bi loolu nag il faut ñu génne ko ci xam ne liggéey bi liggéey yàlla la man amila salihan fa li nafsihi sunu borom subhanahu wa taala moo ñuy soññ pour ñu def ay sacrifice ci ngëm-ngëm gi nga xam ne moom lañ gëm te mooy dëgg te mooy alquran ak sunna mbokk yi gis nga tey xew-xew bi am Égypte su fekkoon ne ñooñu ba ñu commencé ñu ne leen ëët tëj ñii dóor ñii rey ñii rek mbir ma jeex kon duñ jël pouvoir bi tey 40 ans yoo xam ne dañoo souffrir ci ay góor ak jigéen ci rey ci dóor ci toroxal am na ci ñoo xam ne am na jigéen ñoo xam ne ay xaj sax sëy nañu ak ñoom ay xaj est-ce que ñun ñaan nañ yàlla egg foofu waaye xoolal tey lan moo xew mooy ba ñu gëmee màtt bañ a bàyyi suñu borom subhanahu wa taala indi na ndimbalam loolu moo lay wan ne liggéey bi nekk ci gëmal comme li ngeen di wax seen amira bi léegi-léegi nii ki ngeen di tàgg nii maanaam ñëpp a war a mel noonu loolu mooy lislaam xoolal keroog bi yonent bi demee yonent bi mu dem su fekkoonte ne yonent rek mooy mbir mi bu mu demee mbir mi fay waaye xoolal yonent baa ngi ci morgue bi ñuy sang suuluñu ko lu dul ñu teg ci place am ku ko wuutu ci liggéey bi keroog ba Aboubacar toogee lan la wax ñu bari daal di murtat génn ci lislaam ñii ne ñun dootuñu joxe azak ñii ne bàyyi nañ julli ñuy génn beneen waay commencé woote na yonent la muy musaylimatul kazzab Abakar moom toogee ci jal bi lan la wax mu ne giñ naa ci màggaayu yàlla buñ ma xañee benn natt buñ doon indi àndaar buñ doon indi ci yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu dee ba ñu indiwaat ko jay si usaama la tanfis ñu dem rey musaylimatul kazzab diine ji daal di taxawaat waa loolu moo lay wan ne mbir mi du kenn bu doon kenn rek la yonent bi mu demee ji ñu ne jeex na waaye yonent ba dem Aboubacar toog Aboubacar dem ñu teg Omar loolu mooy diine bi mooy saa yu bato demee rek bato day costé saa yu kenn demee rek am na ku war a taxaw place am moo xam ci dund la moo xam dee waaye bu fekkee mbooloo mi bu fekkee section yi bu fekkee coordination yi bu fekkee sous section yi benn nit moo fa nekk wala ñaari nit ñooñu buñ demee wala ñu feebar mbaa ñu dee après liggéey bi fay nga dégg ñu naa diw de moo fi nekkatut moo tax léegi liggéey bi mën a tut a dem loolu musiba la fukki junni nit fu ñu nekk fukki nit ñaar fukki nit fanweeri nit benn nit absenté liggéey bi fay loolu war nañ xoolaat suñu bopp kenn ku nekk ñun bàkkaar yooyu ñu yenu fu ñu ko jëmee kenn manqué liggéey bi dootul am kenn kenn bàkkaar yooyu bu ñu dajeeg suñu borom lu ñuy wax mbokk yi kon mbir mi dafa laaj ñett dafa laaj dund gi sa waxtu sa ruu dafa laaj sa alal laaj sa bakkan nekkul ne da ngay joxe sa temps rek wala sa alal rek waaye même yenn saa yi sax dafa laaj sa bakkan mbir mi ñett yi ngay ci boole pour mu mën a sotti ndax saxaaba yi lii lañ ci defoon dañoo joxe woon seen waxtu yëpp ba mu jeex waaye joxe seen alal yëpp ba mu jeex waaye tuur seen bakkan tuur seen deret jàngeen histoire Sumayya jàngeen histoire Khadija moo njëkk a gëm yonent bi waaye njëkk koo jox alalam pour diine bi taxaw ba abu yo Khadija génn àdduna yonent sallallahu alayhi wa sallam munu ko fàtte ndax abu Khadija lu rëy li mu defal diine Aïcha da daan toog ba caag yonent bi ni muy waxee Khadija Khadija Khadija Khadija fiiraange day jàpp Aïcha mu ne ko dimbali nu ci màgget moomu dem na mu ne ko moo tax ba muy dem lépp la yóbbaale moo ma gëm ba ma kenn ñëpp weddee moo ma jox ba ma ñëpp xañee moom la ma yàlla wërsëgal ma am ak moom loo xam ne amam ku ma kaak benn jigéen gis ngeen c'est parce que ndaw si lim defoon ci diine kon mbokk yi nañu yëg ne sunu alal sunu waxtu sunu bakkan dafa laaj mbir mii daf ko laaj kenn ku nekk si ñun soo defoon mbir mi sa mbiri bopp kon wees nañ fi boo ko defoon sa mbiri bopp mais maal asaf xam nga lu garaaw tey mooy ñoom diw ñi ngi fa am na ko waroon ñëw fii tey xam nga lu muy wax xam naa mbokk yaa ngi fa mbokk yaa ngi fa wala léeg-léeg nga dégg ñu ne ñoo am na su ma demul gaa yi dinañ dem la xawla wala quwwata illa billah musiba weesuwul loolu mooy su ma demul mbokk yaa ngi fa su ñëpp defee noonu su ñëpp toogee seen kër ñu ne ñoom diw ñu ngi faafu su ñoom diw ñëwul nag lan mooy xew xoolal Touba bu jotee da ngay dégg ñii dem Touba ne dundu dem dee dem wala dundu dem dee dem lan mooy dundu dem dee dem mooy bu may dund damay dem bu ma dee dan ma yóbbu suul ma foofu xoolal xoolal ngëm-ngëm googu te tey taw yow buñ la laajoon yaa ngi ñoom ku nekk ci dëgg da nga naan wallahi maa nekk ci dëgg te yow sa dëgg gi jaral loo dara loolu ban dëgg la dëgg bu la jaralul bouger dëgg bu la jaralul yëngatu dëgg bu la jaralul bàyyi say nelaw waaw léeg-léeg ñu am tour ñu ne 5 heures la ñuy commencé jigéen ñi toog ba 6 heures ñëw jaagar jaagar yi yow foo nekkoon dama doon toog reer aw ma ku ma tegal di waaw ah bon léegi nag ñun ñëpp bu fekkee ku nekk da ngay togg reer nga teg ba 6 heures nga ñëw nga xam ne kii def waxtaan day ñëw depuis 4 heures toog wala bu dee conférence la ñi nelaw ba tàkkusaan ñu doog a ñëw lan mooy xew foofu. sunu volonté mbokk yi wallahi lazim ci liggéey yàlla bi ci importance buñ ko war a jox ci ngëm guñ ko war a gëm wallahi loolu moo des góor ak jigéen nag moo tax liggéey bi tardé. moo tax liggéey bi di sooxe moo tax liggéey bi jaxasoo moo tax liggéey bi kenn xamatul lu muy nuru daanaka sax amatul lu muy saf amatul lu muy neex wallahi li may wax nii wàcc leen ci suuf ngeen laaj paa yi samp liggéey bi ñi ci des di dund xam nañ li may wax ni ak jigéen ña fekke woon jamono yooyu da ngeen dem ci ñoom Adja Binta ci ñoom aj soxna Mariétu ngeen laaj leen liggéey bi ba muy tàmbali yan sacrifice ngeen doon def lan ngeen doon yëg ci neex-neex boobu da nga daan gis kii def conférence bi day bokk ci baas bi di baas dem yenu tip indi yenu ba yenu 16 indi 5 heures nga gis ko mu sangu di toog nga daan waaw mais du kii moo doon yenu tip léegi-léegi ak kii parce que foofu la ngëm-ngëm yi tolloon mais tey lan moo xew ci ñun mooy bàyyeeku mooy yàccaaral mooy seetaan c'est parce que iman bi moo des loolu moo tax ñun ñëpp ñu am dooful iman dooful iman lan moo koy waral mooy ñàkk engagé wu ñet ci sa ngëm-ngëm bi sa iman day wàññeeku loolu moo tax tey iman bi wàññeeku iman bu wàññeekoo leneen léppay wàññeeku kon ixwatal iman sunu borom subhanahu wa taala moo ñuy wax ci quran qul in kaana abaukum wa abnaukum wa ixwanukum sunu borom subhanahu wa taala moo nuy woo ci quran mu ne nu su fekkente ne seeni baay wala seeni doom wala seeni mbokk wala alal bu ngeen di fàggu wala famille moo leen gënal yàlla ak yonent toog leen tey lii yàlla wax ni ci aaya bi moo ñu jàpp koo wax mu ne non dañoo am tuur tayan tuuru famille su ma bàyyi ah il faut ma dem sama tuuru famille wala nga ne non sama jëkkër day am gan wala sama doom dama am takk tey wala wala wala wala tey dañ may man la ah natt bi man maa koy teggi tey di te bu ma demee dañ koy jox keneen mooy li yàlla di ñu wax ci aaya bi alal moo tax du ngeen dem doom mbokk loolu moo leen gënal yàlla ak yonent xoola soxo bi ruum yi keroog bu muy gàddaay dafa jël alalam ñëw ba ci digg néeg bi mu gas ba mu xóot suul daal di jël ay flèche am wékku mu génn màkk rek yéeféer yi alerte e ko eh mu taxaw ñu ne ko foo jëm mu ne leen ilallahi wa rasulihi ci yàlla ak yonent ñu ne ko non doo demee noonu parce que yow bi ngay ñëw màkka wala kaane nga woon nga bëgg a yóbbu alal ji mu ne alal topp ma ñu ne ko ana alal ji mu ne ma ngi ca digg néeg ba ma gas man rek man bu ngeen ma teree dem di ngeen ma rey de waaye balaa ngeen may rey dinaa tëral ñu bari ci yéen bu fekkee alal ji rek ngeen bëgg dem leen ci digg néeg bi bu ngeen demee yëkkat ci leen moket bi gas leen ci digg bi foofu ngeen gis suuf su xonq si falaa ko suul moo tax ba mu ne tëll màkk madina lan la yàlla wax aaya alquran moo la yàlla subhanahu wa taala wàcce ci mbiram yàlla mu ne wa min annas man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp ngir am kontante yàlla ñun lan mooy tax suñu problème tey yooyu yooyu moo ñu jàpp mbokk yi yooyu moo ñu tënk ba engagement engagé wu ci liggéey l'islam bi manqué ngëm-ngëm gi manqué lépp manqué te suñu jàngee histoire danañ gis ay jigéen ak ay góor lii ñuy wax ni du ay gént l'islam mbokk yi li ko tasaare li ko indi ci àddina bi sunna alquran ak sunna li ko tasaare mooy ay góor ak jigéen sahaaba yi ñoo yéeg ay fas tasaare diine gi barki démb lañ amoon ay gan sunu benn jàkk ñu ngi jóge woon Maroc buñ ñuy nettali nan la islam duggee Maroc sahaaba yi fa indi woon wala taabiin yi fa indi woon diine nee nañ ay fas lañ war ba ñu ñëwee tasaare islam biir Maroc ba Maroc ba Maroc tas dañoo dugal seeni fas ci biir géej gi ba ndox mi yegg ci gémmiñu fas yi ñu waat ci yàlla ne bu ñu xamoon ginnaaw géej gii ay nit a nga fa danañ xuus géej gi dem yóbbu diine bi ñun waxuma la ñu xuus géej waaye ay buntu kër yu jàkkaarloo rek ay buntu kër di nga gis kenn ci ñun koo xam ne koñ bi mu dëkk kër gu mu jàkkaarlool musoo faa dugg di waar waa kër googu au contraire sax seen biir kër néeg yi jàkkaarloo au contraire sax ñi nga bokkal ndey ak baay say frère say sœur am na ci ñoo xam ne musoo leen a waar ci diini yow rek yow yaa dund sunna sa famille cundung kenn dundul sunna ñaata ci ñun ñoo xam ne ñoom rek ñooy dund sunna seen kër seen papa ak seen yaay duñu ay sunnit ñaata ci ñun ñoo xam ne seen rakk wala seen mag duñu ay sunnit ñaata ñaata kon ana coono bi daawa bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla naan ko daawa lan la ko wax wanzir wanzir asirataka al aqrabin waaral ñi la jege ñi la jege hatta bu doon xeex la yàlla dane xeexal ak ñi la jege wa qatilu alladhina yalunakum min al kuffari ñun waa Sénégal bu ñu doon jihaad walaa ñuy dem di xeex ak waa Gambie wala waa Mali wala waa Guinée ñi nekk ay yéefar ci biir Sénégal lañu war a xeexal ba pare même daawa yàlla na yonent bi waaral ñi la jege ñi la jege ashirataka al aqrabin bu fekkee ci ñi gëm yàlla nag yàlla mu ne qu anfusakum wa ahlikum naaran aaya bi mu wàccee dafa am sahaaba bu jooy ba rongoñ yi jeexital ci lex bi sahaaba yi noppiloo ko mu lànk bañ a noppi di jooy ñu dem boole koog yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko diw barki démb ba léegi rongoñam yi ferut yonent bi ne lu xew ñu ne ko yaa ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran la dégg yonent bi ne dem leen ngeen woo ko mu ñëw toog yonent bi ne ko lan la lan moo la jooyloo mu ne ko ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli man sama bopp mënumaa dugg aljana yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw loolu mooy du ma dugg ne loolu laay jooy man sama bopp rek pour ma dugg dafa metti woon yàlla jëlaat sama jabar samay doom góor ak jigéen teg sama kaw ne ñii ñëpp naa fexe bañ dugg aljanna loolu moo diis sama kaw est-ce que ñun loolu loolu jooyloo waa jooju ñun lan lan war a def ma ne li jooyloo sahaaba boobu mbokk yi ñun lan lan war a jural ñun ci sunu njaboot sunu kër yi nga xam ne daanaka léegi yàqu na télé bi yàq na ko làmb ji yàq na ko film yi yàq nañ ko ci kër këru ahlu sunna soo demee télé bi li ngay njëkk a gis mooy film wala làmb nga fekk ñëpp toog ñuy seetaan làmb te xam ngeen ne seetaan làmb daf xaram xam ngeen loolu ab jullit du seetaan làmb léeg-léeg ma posé gars yi question ma ni góor ñun góor ñi bu ñu toogoon di seetaan ñaari jigéen yu futteeku di bëri comme rek góor ñi ni ñu def ngemb ne ci kaw ba ci suuf dañoo ngemb rek ñaari jigéen bu leen ay góor doon seetaan ndax ñëpp combat bi la ñuy seetaan dama leen laaj loolu dama leen laaj de ma ne ay góor bu ñu toogoon seen ay jigéen yu ngemb di bëri ndax góor ñi seetaan yëpp bëre bi la ñuy seetaan amul ñeneen luy xool leneen lu dul bëri d'accord ngeen ci loolu ay jigéen ñu toog di seetaan ay ponkal yu yu ne lang ak seen doole ngemb ndax da ngeen yaakaar ne jigéen ñi xool yëpp bëre bi la ñuy xool benn mère day seetaan mànga de ba ci kanam rek muy xool mànga mànga di bëre ba caaga mën a cëy mànga poojam yi kum ci kepp gis ngeen moo tax yonent bi ne laana allahu nazira wal manzur ilayhi yonent bi ne yal na yàlla sori yërmande kii xool awra jàmbur ak ki ñuy xool awraam kan moo mën a seetaan bëri ba pare te xooloo awra mbër bi ndax kenn ci yéen mën ngaa seetaan combat ba pare te xooloo awra mbër awra ku góor ki bismillah kan ci yéen la kan ci ñun toog fi mbokk yi mais xoolal loolu daanaka indone nañu dem nañ ba amatuñ ci sax fiiraange sunu biir kër yi film bi noonu la théâtre bi noonu la da ngay fekk saa neex muy xas alquran su nit yi di reetaan muy yàq aayay ñii ree au contraire sax boo xëyee suba da ngay dégg langage bi ay sunnit di ko véhiculer na mu ko doon jalgatee ñu koy jalgatee noonu ñoom fàtte nañ ne ñoom inna saayakum la shatta yaa ngi ñii du ngeen benn mais mal asaf li lii yëpp xam nga lu ko waral mooy ñàkk am engagement ba doful iman dugguñu ñàkk def sacrifice ci diine bi ñàkk xam ñun lan la ñuy dund loolu moo tax ñun ñëpp ñu bàyyeeku loolu moo tax musiba naaru laay daan ñuy dal mbokk yi ci yàlla mbir mi nekk lu ndaw nekk lu simple parce que joxante loxo ak yàlla la jaayante suñ borom subhanahu wa taala day wax ci suratul fathi inna allazina yubayi'unaka innama yubayi'una allah yadullah fawqa aydihim ñiy jaayante yow yonent bi jaayante wu ñëw yow de yàlla la ñuy jaayanteel inna allazina yubayi'unak innama yubayi'una allah ñiy jaayanteeg yow maanaam mooy képp ku ñëw di dund sunna yonent bi indiwu la amira indiwu la amir indiwu la waaye yàlla moo la indi waaye yàlla moom dafay nekkatut su fekkee liggéey bi dem na ba jaral duñ dara xanaa yàlla moom boog woote woon yàlla moom nektu fi wala yàlla la mu diggee woon dane du ko def daf ñu war moo tax ñu ñu découragé kon foog ñu yee salaat soo gisee sànq ma ne ñu yee salaat yéene yi mbir yëpp ci yéene la su fekkee ndaw si la ko dugal ci sunna mooy dégg naa ku muuru am jëkkër kooku du liggéey bu fekkee ku góor ki tamit looloo ko dugal ah du liggéey sunna ki ci dund ki ciy dund mooy li mu war a njëkk a def ci boppam mooy jële fi shirk ak bidaam bu njëkk ba da ngay dégg ñu ne ku ñëw di dund sunna ñu ne mbir mi projet la yow da ngaa bëgg a tëral état islamique waaye yoon wi nga ko bëgg a defee foo koy jaaree mu ne kon man xale bu góor bi wala xale bu jigéen bi li ma njëkk a def mooy naa tëral këru jullit kon jëkkëru jullit laa war a wut tey ñaata ci ñuy dund sunna xaw ma cees de ñaata ñuy dund sunna ñu am jëkkër ku dul sunnit léeg-léeg rek rek Dakar ku ne wu man de Modou Modou yaa ko yor laa ilaha illallah Modou Modou rek wala loolu yegsi na fii ci yéen benn bis waxoon naa Amira Dakar ma ni ko na ngeen def attention bu baax un jour viendra ngeen am goro mbër ñoom ñoom ñu taf seen gémmiñ onze billahi mina shaytan rajim onze billahi mina shaytan rajim ñu jékki-jékki dégg yëkk yëkki ni takk na ko muuru te xoolal ni mu ko fase ci combat bi la ko fase c'est parce que nee nañ ah ndax njibar njibarkat yi nee nañ ko ki nekk sa kër di muuru moom ak li nga bëgg a def mënut a ànd dèjà mu fase ko ba pare ñu daan ko gis ngeen kon naka ngeen imaginer jigéen yuy dund sunna gëm alquran ak sunna am jëkkëru mbër wala mu am jëkkëru rappeur wala mu am jëkkëru simbukat wala mu am jëkkëru musicien wala ku góor kuy dund sunna dem am jabar joo xamante ne sëñ bi maara de im si mais loolu mooy loolu mooy programme bu changé man li ma taxoon a jóg loolu laa bàyyi loolu moo ma réer lan moo ma taxoon a jóg mooy damaa bëggoon tëral benn société islamique société islamique boobu dama ne woon bu ma amee jabar ju gëm li ma gëm ñu am ci doom ñu yar ko ci ay doom ma def noonu kii def noonu kii def noonu kii def noonu kii def noonu bu yàggee ñu am dara mais ñu jékki-jékki ci ñun léeg-léeg nga gis ci benn waay bu dem takk ji soxna suy def bopp neen di meesu ba ci ndigg li léeg-léeg nga gis kenn ci soxna yi am jëkkër boo xam ne sam waay jaaro nopp lay takk dem soirée ñaata ñaata tey ñaata tey ci ay sunnit yu am jëkkër yu gëmul sunna ñaata léeg-léeg sax nga gis ci kenn ci am doom doom bi ñu takkal ko fii xaaw fii pettaaw fii sagar gu xonq fii boo ko ne lii nag subhanallah waa mbokk yow mu ne papa ma ko ko takkal li papa papa ma ko ko takkal li parce que papaam nga tànnul parce que tànnoo parce que tànnoo papa ji yéen a ngi ni toog kenn ku nekk ci yéen buñ ko joxoon xaalis ci jamono feet tabaski wala korite wala xew xew nga dem di jëndi tisi sept heures ngay génn ci kër gi dem marché ban heure ngay ñibbisi waat te tisi ngay tànn ban heure ngay ñibbisi 14 heures de temps di nga ko def ci marché bi di wër tisi boo sol 14 heures de temps boobu sax dafa sori kenn ci yéen rek ci seen mariage yi day dem salon 4 heures ci ngoon ba 9 heures ci guddi ba gan yi ñëwoon ci xew bi sax dañuy ñibbi duñ gis femme bi nekk salon di solo léegi léegi fan lañ jëm. fan lañ jëm ñun ñooy ñan loolu loolu loolu gaa yi naan jot na kenn ku ne nga toog sa ruq ne man a kan loolu jot na bu ñu bu ñu ànd nii rek di jaayante nañu waxante dëgg gis nga lii wallahi amir dafa war a taal otoom sous section bu nekk wala membre bu nekk mu dugg ak yow ci biir néeg wax la dëgg gi dundatuñu sunna góor ak jigéen nag dundatuñu sunna de bu ñu yaakaar ne dund sunna mooy muuru wala am sikkim wala am mbax ne wala gàttal tubéy déedéet loolu mazahir la inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum yàlla lan lay xool xoolul kaala yi xoolul tubéy yi yére yi yàlla xoolul loolu yàlla xam nga lan lay xool jëf yi ak xol bi mooy li ma waxoon sànq yéene bi ak jëf ji ngay jëf loolu la yàlla di xool mais instant bi dund dund sunna ñu ngi ci mbooloo sunna nag mais suñu xol yi sunna moo ci nekkatu adduna moo ci nekk ngëm-ngëmu adduna kon foog nu delloowaat xel suñu bopp xam ana lan moo tax ñu jóg ana lan mooy sunu bëgg-bëgg ana lan moo nu war ba ñuy dund sunna lan moo taxoon ñu tànn sunna mbir mi du yomb de dañu laaj Ibnu Abbas benn jigéen a ngi ni boo xam ne mi ngi safara te ndaw si kat déglu leen liggéeyam kaanat tasuumu nahaar wa taquumu leyl da daan woor ba ca di julli guddi ñu ne laa xayra fiha hiya fi nnaar tey su ma ne woon sama mbokk mi utal ma soxna Cees mu ne ma gis naa koo xam ne day wóor bëccëg di julli guddi lan laa koy wax macha allah mbokk kooku jox ma numéro kooku baax na waaye xoolal ñu ne ndaw si baaxul ma nga safara lan la def ñu ne kaana tuzi jiiraanaha ndax da daan lor ay dëkkandoo xoolal li muy def yëpp ni mu baaxee mais xoolal li mu yàq ndax da doon lor ay dëkkandooram loolu muy lor dëkkandoo yi moo ko yóbbu safara moo tax bu ñu jël yenn ibaadaat yi rek wala yenn feeñ feeñ yi rek ñu daal di koy kal ci liggéey lislaam bi daan ne jeex na muuru naa jeex na muraay bi bu sellulee nga am problème jëf ji bu sellulee nga am problème yéene bi bu sellulee nga am problème dafa am benn waay boo xam ne ruuxam dafa timsaal ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala yàlla mu ne malaaka yi yóbbu leen waa ji safara malaaka yi ne yàlla mais kii ay fëyam fi ñuy bind xasanaat yi gisuñ fa bakkaar te ñun yow yàlla liñ ñu xamaloon mooy lii yóbbu nit safara mooy ay bakkaaram te kii ay këyitam ñun malaaka yi binduñ ci yow yàlla nag yaa xam xayb kon kii lan mooy sababu mu war a dem safara mu ne kii dafa amoon yaay da daan dem rëbbi rey ay njombar ak i kéwél fees lakk ba mu ñor dagg def ci mbuus indil yaayam waaye bu joxee yaay ji mu lekk ba pare ba yaay ji naan xol bi mu ne yal na dee ba ma noppalu waay waay yal na meer bi dee waay ba ma noppalu fii mooy wax loolu gémmiñ gi di ko wax de fii mooy yéene bi allahumma xuzha wa arixni minha yàlla yal nan ko rey ba ma noppalu loolu mooy sabab mu perte yowmal qiyaam loolu mu defoon lépp moo tax foog ñu defar fii fii suñ ko defarulee dañuy sonal suñu bopp nañ defaraat suñu fii yee salaat suñu yéene suñu digganteeg suñu boroom xam ne mbir mii du liggéeyu ma sàmb du liggéey ma demb liggéeyu yàlla subhanahu wa taala wax naa leen sànq ne ñi doon jaayanteeg yonent yàlla dane yonent bi ñiy jaayante wu ak yow man la ñuy jaayanteel man man yàlla yadullah fawqa aydihim loxo yàlla mu ngi ci seen kaw loxo yi yadullah la wax kon du mbiru ma sàmba du mbiru ma demba du mbiru ma ne yéen ñi teew tey su ngeen amee yéene bu sell wallahi déwén fii balaa déwén di ngeen def liggéey bu rëy Cees fii yéen ñi toog ni kese bu fekkee seen yéene sell na ngeen pare pour Cees dundaat dundu islam yéen ñi kese mën ngeen ko waaw bu ngeen fi jógee nelawaat kenn ku nekk na na amira ngi foofu moodoo ngi foofu koddoo ngi foofu ndeyeng fa danañ fi dajawaat juróom fukki at yi lii rek la ñuy waxaat sahaaba yi lan lañ ñu rawee mooy jëf ñun ñoo leen ëpp mooy téeméeri yoon 9 heures laa jóge Dakar 11 heures fekk na ma Thiès imagine leen tey bu fekkoon ne fas laa yoroon est-ce que egg naa Pout ba léegi maa ngi Bargny wala Tëngéej mais xoolal moyens yi ñun ñoo leen ëpp moyen téeméeri yoon ñoo leen ëpp mbooloo téeméeri yoon ñoo leen ëpp alal téeméeri yoon waaye ñoom lan la ñu ëpp mooy al iman wal amal ñoom ngëm lañ ñu ëpp ak jëf ngëm ak jëf lañ ñu rawee yonent bi saa salaam da doon wax ne alxuraan bi ngeen yor loolu la gaa yi yor alxuraan bi mooy wàcc ba léegi wala alxuraan bi moom la ñu yor ba léegi nii sunu loxo yi moom la ñuy jàng waaye ñoom dañ jëloon alxuraan bi dugal seeni xol ñuy jël alxuraan bi téye ngëpp suñu loxo ñoom dañoo jëloon alxuraan def seen xol jël àdduna teg seen loxo ñu ñu jël àdduna dugal suñu xol jël alxuraan teg suñu loxo su mettee ñu sànni daa des ak àdduna exa nga di ku daa man nag am mbir mi jaralu ma ko nag jaralu ma ko di jaralu la ko yàlla ak yonent bi jaralu la ko ñoom jaral na leen ko moo tax ñu raw nu ma ne sikki nekk ci ne ñun mënuñoo buuxanteeg ñoom ëllëg buntu aljanna ñun mënuñoo buuxanteeg ñoom parce que ñoom dañ nu raw dañ nu raw mënuñu buuxanteeg ñoom nitu tarixa yi sax dañ ñu raw nitu tarixa yi sax ñoo ñu raw ci sacrifice ah ci engagé bu ñu engagé wu ci seen tarixa yi dama koy wax chaque jour duma deñ di ko wax ma ne nitu tarixa yi sax ñoo ñu raw te ñooñu yaakaaruñu ci yàlla fay da ngay dékku ne man sëñ bee may fay di ko ci wax wax joo xam ne sëñ bi moo ñuy fay fekk yow xam nga ne sëñ bi amul fay yàlla moo am fay te yow mi yàlla jaral benn waay dafa tabax dafa taxaw ci keppaaru kaaba gi mu dégg ku naan fii sabilillah kuy defal yàlla mu génne joxe waa ji daan ne kuy defal yàlla mu daal di koy joxaat waa ji ne kuy defal yàlla mu jox ko ñu ne ko yow suba ba léegi yaa ngi jox waa ji mu ne dégguloon li muy wax bu dakkut lii du dakk maanaam yàlla la may laajee yàlla laa koy joxe fekk mu ngi ma naan ma yàlla rek maa ngi koy jox ma yàlla war nañu jaral loolu mbokk yi mais bu ñu dematee ba yàlla jaralul dara dara dara est-ce que li coordination la Thiès ah nii la tool anañu coordination Thiès nii la tool wala ñoom ñëpp yëguñu ko wala information yi jàllul Thiès yëpp ni ngeen toll ñu ñooy dund sunna Thiès li mooy jamaat yi war rahman Thiès kon xam nga ne mbir mi des na mbir mi am na lu ñu jaralatul il faut mu jaral ñu nag benn mbokk dafa ma nettali mu ne Égypte dañ daan jekk rek al imam Hasanul Banna mu ne fii nga dégg tey ñu naan maydaanu tahrir ah dañ daan jékki-jékki rek mu ne yéen ñëpp daje leen fa minuit minuit minuit te bu kenn tarde seconde minuit mu ne dañuy jékki-jékki moins cinq bayal baa ngi vide minuit pile mu fees del mu ne tëll gis mu fees mu ne yéen ñëpp ñibbi leen asalaamaaleykum voilà tey bu ñu ko defoon ñaari yoon ñett ah dajee leen place sàngam minuit ñu ne tëll amir ñëw ne jërëjëf ñibbi leen soo buñ la ñëwal nga ni moom ci patu ngay def ne ba sa gémmiñ ñi di bëgg a dagg barki dem bam ñu ko fa defee tus la fa waxut dañoo ñëw mun a jërëjëf ñibbi leen nga defa ne man loolu dana ma bàyyiloo samay nelaw non problème bi pas-pas la pas-pas ngëm-ngëm la il faut nga gëm ko mu jaral la suñ la waxee de mais wala Baye Fall yi Baye Fall Baye Fall du lekk du naan du sang du am jabar parce que gëm na ne lool la lool la ngëm-ngëm la damay faral di wax ne yenn saa yi parti politique yi sax ñoo ñu ëpp pas-pas parti politique yi xoola ñoom Y'en a marre ay jeunes Y'en a marre góor ak jigéen xoola élection passée li ñu def ah ba pare pare ci ba pare sax naan ñun soxlawuñu dara ci gouvernement bi en tout cas dañ leen doon wan ne rek ñun dañ doon liggéeyal suñu réew mais ñun nag su fekkee ñii dañuy liggéey ci liggéeyuñ dara li ñuy liggéey yaakaaruñ ci tus yéen alquran waxoon na wa tarjuuna min allahi ma la yarjuun yéen yaakaar ngeen ci yàlla loo xam ne ñii yaakaaruñ ko ba pare ñoom ñu ñuy ëpp ay pas-pas mbokk yi dafa am benn jigéen ci Maroc bu tudd Fatima Fatima dafa am benn terrain terrain bi mu xëy ne dafa ko bëgg ñu tabax ko juma papaam dafa dee bàyyi ko alal ju baree bari ay milliards ñu yaakaaroon ne day jël alal jooju commencé yéeg avion yi ana Las Palmas ana Dubai ana ana ana mu daal di woo benn architecte ne ko terrain bi dama bëgg nga xoolal ma lan moo fi mat pour mu nekk juma waa ji daal di koy wax bindal ko ci këyit mu ne ko na maçon yi xëy génn alal ji commencé jënd bagage keroog bi ñuy sampee première pelle ci terrain bi gas ndaw si xëyee koor xam ngeen kooram googu kañ la jeex biñ ko joxee caabi ji ne ko jumaa ji pare na weer yi ñu tabax jumaa jëpp at yëpp da koo woor ba jumaa ji pare xoolal xoolal loolu xoolal imaan yooyu xoolal ngëm-ngëm googu jigéen am xoolal ñun suñu bopp xoolal jàngeen histoire Rabiat al Adawi maanaam mbir yi ndekkee sacrifice la ak engagé wu dem ba jeex jëkkër ak sàmbaak papaak ndeyak baayak jàngeen histoire Zeynab Xasali bi muy am jëkkër lan la wax jëkkëram ah yow xam nga jigéen kenn du ko wujje mu ne ko ah mu ne ko nag yow da nga am koy wujjeel jëkkër ji loolu la ko wax da nga am koy wujjeel ndax dama am jëkkër ba pare mu ne ko lan mu ne ko waaw da nga fay fekk ku ma takk ba pare mu ne ko kan mu ne ko woote ci yoonu yàlla bi nga fekk ba pare soo nangoo wujjeeg moom nga ñëw mooy kooku moom saa yu ñëwee moo aye balaa ngay jot ci man daal fekk ma defal yàlla li ma ko waxal ba pare soo nangoo nga ñëw waa ji na ko bismillah ñu doog a sëy xoolal ci saxaaba yi ki nga xam ne dafa ñëw ne ndaw si yow rek laa bëgg mu ne ko ban rek mu ne waaw mu ne pour nga jot ma foog nga tuub sama can li ma lay laaj mooy nga tuub tudd baatu seede yi mu nekk can kon ndeke ay ay misaal yu dul jeex ci yonent yi ci saxaaba yi ci nit ñu baax ñi nga xam ne ñoo gëmoon l'islam ci engagé wu ci def ay sacrifice du jeex suñ ci bëggoon nat jëlal yonent yàlla yusuf ci engagé bu mu engagé woon ba ci biir kaso tey kenn ci ñun buñ ko tëjoon kaso danaan ah am naa am naa fu ma noppaloo xoola yusuf ci biir kaso tàngaayu kaso seenu kaso salte kaso tilimu kaso tumuranke waaye fa isa bi yusuf yuhawilu sijin madrasata tawxid yusuf changé na kaso bi def ko benn école tawxid lan la wax yaa saahiba sijin a arbabun mutafariquna xayr amillahi wa kaso bi yëpp la yusuf defaat état islamique kaso bi ba kenn seeneetul prisonnier kenn dóoratul kaso bi dafa tilimoon mu set wécc kaso bi kenn daawul julli ñëpp di julli kaso bi ay bandi ñoo fa nekkoon léegi ay waliyu yàlla ñoo fa nekk kaso bi ñu noonoo ñoo fa nekkoon léegi ñu bëggante ñoo fa nekk yusuf moo ko def ci biir kaso kon ndeke liggéeyu yàlla bi du question ne dama am temps wala awma temps ñun tey bala ñuy liggéey am temps awma jot de yenn saa nga dégg ñu ne réunion bi ban heure lañ koy def ñu ne non 4 heures ñu ne 4 heures ah naaj bi day tàng nag naaj bu tàng boobu moom ku ñëw ah seet leen nag bàyyi leen ba kenn ah loolu moo tax ñuy liggéeyal yàlla balaa ngay liggéey ker gi sedd kon yow liggéeyatoo yàlla yow ker ngay liggéeyal naaj bu tàng xoola kee di dox ci naaj bu tàng bi solul daal takk kër gu nekk mu dugg fa di laaj ndimbal te ci tarixam la koy yóbbu te solul daal te naaj baa ngi tàng yow mu ñu la woowee réunion 4 heures mënoo ñëw parce que yaa ngi lay naaj bi dafa tàng parce que yaa ngi lay aw ma ku ma xaar kër ga parce que yaa ngi lay nangam saxaaba yi keroog bañ lay waxee kaay leen xeexi am lenn ci ay naafiq yu nekkoon seen biir daan ne bu leen dem parce que naaj bi dafa tàng lan la yàlla tont qul naara jahannama ashaddu harran law kaanu yaalamuun jàngeen histoire ashaabul uxdud ba buur ba jëlee nit ña da leen lakk di leen dugal ca kambu safara gi ba mu des benn jigéen boo xam ne dafa bootoon doom ba mu ñëwee ba ci kamb gi taxaw ndax xalaat doom ji ndeysaan nit ak ak doomam mu xalaat lakk safara si xalaatul sax boppam mais doomam mu hésité lan la ko xale bi wax yaay duggal ci kamb bi ndax yàlla musal la ci safara ëllëg yowmal qiyaama duggal ci safara adduna ndax yàlla musal la ci safara àllaaxira ndaw si daal di cëppeelu daal di dugg ci biir danañ xool suñu bopp ñun ay tàngaay la ñuy layeeg ay ay ay lu kenn xamut yoo xamante ne daanaka yal nañu yàlla yërëm daal delloo siwaat suñu xel nii talaat ñu yoon wi ba ñu xam ne mbir yi ndeke du ay làmbatu mbir yi du mbir yi ngëm-ngëm la ngëm-ngëm olof yi dañuy wax ne ku ku bëgg akara ah da ngay ñeme kaani ñun dañoo bëgg akara ba pare ne duñ lekk kaani du sotti maanaam liggéey bi xam ngeen fan la tàmbalee woon liggéey bi ay nit dañ cee dee ca yonent ya ba ci yonent yàlla muhammad liggéey bi ku ci nekk feebar du la téye feebar du la téye dëj du la téye ñàkk du la téye dara du la téye yu yaqub jàng ngeen histoire yu yaqub alayhi salaam yaqub mu ngi ci sukuraat mi ngi waaj a dee mu dajale doom yi ñëpp toog benn laaj la leen laaj alquran moo ñu ko wax maa taabuduuna min baadi lan ngeen di jaamu sama ginnaaw xoolal mi ngi ci sukuraat mais dafa bëgg lim fi bàyyi pour mu teg ko ci ay loxo yu leer lan ngeen di jaamu sama ginnaaw waxu leen tool yi naka ngeen koy gérer waxu leen alal ji naka ngeen koy yokkee waxu leen immeuble yi waxu leen terrain yi waxu leen château yi daf leen ne lan ngeen di jaamu sama ginnaaw ma taabuduna min baadi qaalu naabudu ilahak wa ilaha abaik ibrahim wa ismail wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun bàyyi sa xel na dal ñun ak yow danañ daje ëllëg yowmal qiyaam di jaamu benn yàlla bi sa baay doon jaamu ibrahim ismail ishaaq yaqub ñii ñu lim yàlla boobu ñu gëmoon ëllëg danañ daje yow àllaaxira fekk yàlla boobu la ñuy jaamu xoolal kooku ci sukuraat kooku sax dafa sori jël leen yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam feebar na ba mënta taxaw julli mu tëdd mu dégg ñuy liqaam ci jàkk ci munul tëdd mu woo ñaari nit ali ak uqayl ñu daal di koy tingoom jàpp ci mbagg yi tànk yi di diriku sahaaba yaa ngi taxaw abubakar ngi taxaw place yonent bi sahaaba yi kenn ku nekk ci ñoom mu ngi triste parce que mu ngi toog ay fan gisul yonent yàlla muhammad waaye yonent bi bëggul génn àdduna lu dul foog mu bàyyi foog mu xool sahaaba yi ñii nan la leen bàyyee ci sàppe ci julli fajar ñu jékki-jékki rek dégg riir ci seen ginnaaw ñoom am na ci ñoo xam ne sax dañoo gestu bi ñu yëgee ne yonent bi saa salaam mooy ñëw ci situation boobu sàppe yi xar ñu xuus yonent bi saa salaam ba mu egg première sàppe ba mu tolloog Aboubacar Aboubacar bëgg a reculer mu daal ne ko nii munul wax da ko joxoñ baaraam ne ko continuer julli gi yonent bi daal di julli toog munul taxaw bi ñu paree sëlmal yonent bi jàkkaarloog sahaaba yi ndeysaan abdullah ibnu mas'ud mu ngi nettali nee na maa ra'ayna manzaran kaana ajaba ilayna hina nazara ilayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ka anna wajhu warqatu mushaf nee na keroog yonent bi xool bi mu ñu xool jàkkaarloo bi mu jàkkaarloo ak ñun musuñu gis kanam gu leer gu mel nii te mu ngi ci sukuraat nee na kanam gi dafa leer ba mel ne këyit goo xam ne feuille alquran la yonent bi ni sallallahu alayhi wa sallam lan la leen wax ndax da ngeen a ragal ma génn àdduna ndax da ngeen a ragal ma génn àdduna kenn ci ñoom mënul tontu ndax ay rongoñ ndax ay baat jàkk ji ñëpp di yëkkat di yuux ay minute lañ ci def ñu jël yonent bi delloo ay waxtu ñu dégg ay yuuxu jib kër yonent bi mooy yonent bi génn na àdduna sallallahu alayhi wa sallam waaye ñoom tiit nañ ba kenn ku nekk ñemewu ko wax ci làmmiñam bu ko wax mooy yonent bi moo génn àdduna Aboubacar moo dégg yuuxu yi këram daal di waaxu ay jéego yu tàng ñëw dugg néegi yaay Aïcha fekk ñu tàllal yonent bi ba mu tàlleeku ñaareel daal di koy sàng mbàjj mu muri mbàjj bi gis lumière bi di jolli ci kanam yonent bi mu daal di koy fóon ci jëbi ne ko tibta hayyan wa mayitan ya rasulallah mbokk yi foog ñu xam li ñu am lan la foog ñu xam lii nu nekk foog ñu xam li tax ñuy yëngatu lii du du bokk du bokk ci mbooloo mi kese déedéet lii ngëm-ngëm la jubluwaay la liggéeyu yàlla la yàlla nag ku mu liggéeyul du la fay kenn ku nekk ñun ku bëgg yàlla fay ko foog nga liggéey yàlla nag subhanahu wa taala maandu na maandu goo xam ne soo ko liggéeyee seconde sax mu fay la ko seconde jàng ngeen histoire saharatu firawn njabarkati firawna yi njabarkat yi xëy nañ ci suba di concours ak Moussa ci suba si naan firawna ñun bu ñu gàñee loo ñuy def mu ne ay ministre a inna lana la ajaran in kunna nahnu alghalibun lan la leen wax naam innakum min almuqarrabin su ngeen ko gañee ma def leen ay ministre xoolal ñu ngi xëy di bokkaale ay seconde ay seconde la ñu xam ne lii dëgg la ñu daal ciy dugg firaaw na daal leen di rey ñu dugg aljanna julli wu ñu wooruñu defuñu benn liggéey te dem nañ aljanna julli wu ñu wooruñu joxewuñu azak aji ñu màkk dañoo xëy di bokkaale balaa ngoon ñu dee dugg aljanna lan moo tax parce que ngëm-ngëm gi moo changé xëy nañ naan firaaw na yaay sunu borom ñu dajeeg Moussa ne ko sa borom ndeke mooy borom mbindee fi moo tax bi leen firaaw na jàppee naan leen ah ndeke kii mooy seen kilifa danaa leen rey danaa dagg seen loxo ndeyjoor tànk càmmoñ dana dañ dañ ko ne defal lu la neex sunu yaram nga am accès waaye sunu imaan munoo koo laal munoo laal sunu imaan sunu yaram nag lu la neex nga def ci waaye ngëm gi moom munoo ci dara gis nga nekke kon foog ñu am ngëm-ngëm ngëm-ngëm googu bu ñu ko amee moo ñuy animé ba ñuy def engagé wu ci liggéey l'islam bi ba ñuy def ay sacrifice di def loo xamante ne kenn ci àdduna du ko xalaat mais bu fekkee imaan yi dañoo wàññeeku doful imaan am ah yàccaaral day am yàccaaral bu amee soofantal liggéey l'islam bi daal di am comme ni mu amee nii nga xam ne nit ñi yu ñàkk fayda moo leen di tere dugg ci diine bi yu ñàkk fayda kenn dootul nekk woot kenn dootul woote kenn amatul pas-pas bi kenn ngëmatul ngëm-ngëm gi su ko defee nag lan mooy war mooy li am nii ñu yaakaar ne ñoo ngi ci dara fekk nekkuñu ci dara dañu nar a dee dajeeg yàlla ci ay loxo kese koo wax tey mu ne la xaw ma kañ laa gëj a naafi la guddi koo wax mu ne la ah koor ba koor daal laay woor koor ba koor laay woor bu njëkk ba da nga daan gis ku jóge Thiès ñëw ba Dakar naan suba la ayaamul biit dem nga daan gis ku taal otoom wala mu jaral ko mu dugg ci kaar yi ñëw ba Dakar naan suba la ayaamul biit suba la 15 la 13 la 14 la 15 pour ngeen woor loolu donc moo ma indi woon pour fàttali leen ko ñibbi naa boobu la jawul iman amoon boobu la mbokko amoon boobu saa yoo séenee ku muuru da ngay taxaw ba mu yegg ci yow asalaamualeykum wa rahmatullah wala ku góor ak ku jigéen mës naa ànd ak benn xale bu jigéen ñuy dem parcelle yàgg na loolu ak léegi war naa mat fanweeri at boobu soo gisee ku muuru bala nga koy gisaat day yàgg ñu seen kuy muur rek mu dem oustaz taxawal kenn ki benn mbokk ngi ne la di ñëw ma ñu taxaw fekk dañu àndoon ak ñeneen ñu xam ne muuru wuñ de xew lañ doon dem ba mbokk mi yegsi rek mu ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah kooku mu ne waaleykum salaam ñu daal di lëngoo ñoom ñaar mu ne ko mbokk mi noo tudd rek kenn ñu mu ne ko yooyu yaa soof nekke xamoo kii nu mu tudd mu ne ko sama mbokk la xamoo ko ma di ñu te ñu taxawloo mu ne ko sama mbokk la est ce que loolu am na tey fii fii tey da ngay dajeeg ni ne ko asalaamaaleykum ah asalaamaaleykum asalaamaaleykum sax léegi kenn ko wax ni ne vr vr vr ndeysaan voilà foofu lañ toll tey kon ndekee mbir yi du loolu ñaata yoon lañ jàng ci alquran ah ñaata yoon lañ jàng mbokkoo islam ñaata ñaata hadis al muslim hadis bi ci gën a gàtt al muslim axul muslim والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر yàlla nee na julli di góor yu jigéen ñoo war a allié ñoo war a bokk mbooloo wàcc ci liggéey yàlla bi ci digle lu baax ak cere lu bon loolu fan lañ ci toll sunu kër yi sax digle tam lu digle digle tuñ fa lu baax waxuma ñu fay tere lu bon sunu biir kër yi kon mbedd mi kon koñ bi koñ dëkk bi fu njëm koo gis mu ngi bàyyeeku koo gis mu ngi bàyyeeku su fekkee ñun ñi gëm yàlla nee na yonent nee na ñun ñoo bàyyeeku ñeneen ni ñuy def te jamono jooju ñuy bàyyeeku jamono jooju la mbooloo yëpp jóg di woote léeg-léeg sama kër ma toog ba ci yàgg rek ma woo sama soxna kenn ci ñoom fu maaye ma ne ko ah dégg nga ñooñu maanaam dëkk bi saa yoo xaw ma ndax xaw ma Dakar ndax fii de mais Dakar guddi gu nekk di nga dégg mbooloo tarixa buy woote ñee ngay tëgg ñee ngay yuux ñe guddi gu nekk nag léeg-léeg ma ne ko waaw soxna si mu ne ah ma ne ko ñooñu de ñoom diw la yéen nag mu ne ñun ñu ngi nelaw ah loolu ba kañ mbir yi mbir yi xëccoo la njëkkante la da ngay woote ñuy woote ndeke mbokk yi ñun mbir mi fiñ ko kal dafa tuuti foog ñu bàyyi xel ne liggéey bi sunu borom subhanahu wa taala sunu loxo la ko teg ñun la ko yàlla dénk olof yi nag dañuy wax ne mu jëpp sa mu réer gàcce la ñun instant bi ni bu fekkee yéen yéen a bàyyeeku xale yu ndaw yu ñëw fuñ jëm loolu moo tax tey ngeen gis bàyyeeku mag ñi moo tax tey ngeen gis biir kër sunu di ay xale yu jigéen nekk fi duñu muuru te yéen ñi ëpp ci yéen bi ngeen di jund ci sunna am na ñoo xam ne bu ñu doon tëdd sax seen kol dañ koy tëdd ci kaw lal da nga ci daan gis xale boo xam ne bu kolam lay fanaanoo su yeewu woon wëlbateeku gis muuruwul day yuuxu pour yaa ji jox ko kol bi ne ko yaa ji ne ko guddi na da ngay nelaw mais da koy fanaanoo tey loolu est-ce que bëri na bëreeti na parce que lu tax xale bi wàññeeku mooy yaay ji moo wàññeeku papa ji ñoo wàññeeku papa ji dem jàkka fajar yaay ji day nelaw bër bu ko neex du ñu xiyam du ñu na du ñu julli guddi te xam ngeen ne jullit bi gën a yées ci jullit yi mooy jullit bu tëdd minuit ba 5 heures du matin ñaari rakk sax jox ko fi yàlla ñaari rakk yàlla bu muy tagg sahabatu kiram lan la wax kaanu qalilan min al layli loolu mooy lan lañ koy tekkee ci wolof kaanu qalilan min al-layli ma yahjaun néew na luñ daan nelaw guddi néew na néew na luñ daan nelaw guddi ya ayuha almuzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattali al-qur'ana xam nga lu tax yàlla wax loolu yonent bi inna sanulqi alayka qawlan saqil dañ laa nar a jox wax ju diis liggéey bu diis lañ la nar a yen liggéey boobu nag boo amul formation bu la jaral nga bàyyi say nelaw guddi su bëccëgee doo ko bàyyi ku nelaw guddi liggéey lislaam jaral bàyyi say nelaw leneen mënu la ko bàyyi lo moo tax sahaaba yi yàlla da leen a formé ba nga xam ne xam nañ ne mën na noo yenu liggéey bi yàlla doog leen liggéey loo kon su ko defee mbokk ci yàlla jàpp naa ne incha allah lii ñu wax mën nañ koo gàttal fii ba nu julli ba pare bu fekkente ne jar na am débat incha allah ñu daal ci dugg in aradtu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu